aywa euh, économie dañ ko am fii ci kanam Abdoulaye jàlloo laataa loolu mun nañoo jàll ci xarala bi tey nag aw siñaata yaa ngi koy wax gars yi artisanat yi ñoo dugg ci wàllum digital ñu taxawal application boo xam ne dafa bëgg a ñoŋal euh, lii di seen ab liggéey waa Fati euh, application bi mi ngi tudd Caresse yi. Caresse yi nag ki ko taxawal mooy Marie Madeleine Diédhiou benn ndaw la. moom nee na gannaaw bi mu toogee gis ni que ni ñu yëngu ci secteur artisanat bi seen visibilité bi dafa des. ci la noonu nag la daal di créer application bi ngeen jox leen beaucoup plus de visibilité. ñu mën dugg ci digital bi mun cee ñaw jaay wala defar daal la jaay. ngir rek yombalal leen seen liggéey. Euh, ya gën ko yaatal. élément bi ci aw si ñaata def la dem seetaan yi dellusiwaat léegi léegi mën cee waxtaan. gannaaw bi mu juddoo ci famille artisan nekkit ki nga xamante ne dafa yàgg nemmeeku li nga xamante ne moom la jafe yi nga xamante ne moom la artisanat bi du dudd ci problème visibilité moom soxna si di Marie ci noone la daal di jóg rek daal di taxawal application bi ngir mën a jàppale ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci su secteuru artisanat bi maanaam tailleur bi wala uude bi wala sax yeneen ak yeneen. salaamaaleykum maa ngi tudd Marie Madeleine Diédhiou di leen présenté plateforme tudd Carissy Carissy nag euh, dafa mel ni lu boole Pinterest ak Instagram pour jàppale ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci artisanat bi euh, bu ñu nee artisanat nag dinaa wax tailleur dinaa wax euh, menuisier dinaa wax même coiffeur yi dinaa leen ci boole ñoom ñëpp ak yeneen corps de métier artisanal yi pour ñu gën a mën a fësal seen liggéey. plateforme bi nag di CARES yi moom it dara taxu ko jóg lu dul jàppale ñi di ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci wàllu artisanat bi. donc boo leen bëggee euh, utiliser euh, plateforme bi da ngeen koy télécharger sur Play ngeen tapé CARES yi wala ngeen euh, xool ko sur caresi.com wala ngeen xool ko ci réseaux sociaux yi ñu ngi foofu tamit lu mel ni Instagram Facebook ak LinkedIn. gannaaw plateforme bi nga xamante moo di CARES moom Marie Madeleine Diédhiou nag jot naa taxawal benn chaîne YouTube loolee répp ngir rek taxawu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci artisanat bi. yàggul dara tamit tijji nañ chaîne YouTube boo xamante ni dañuy gën a fësal liggéeyu artisan yi. mën ngeen ñu jot tamit sur 77 472 36 46 ñu ngi woo artisan yëpp. ñu télécharger application bi utiliser ko pour gën a seen liggéey. comme ni mu ko waxee rek moom it plateforme bi lépp loo ci def rek c'est gratuit da ngay daal di télécharger application yi te it boo ci bëggee am leneen lu la réer it boo nga dugg ci li nga xamante ne moo di réseau sociaux yi maanaam ñu ngi ci Instagram. am page YouTube loolee yépp ngir rekk bañ a bàyyi artisanat bi gannaaw aw awa signaté bu am solo boobu mu indi ci la ñuy waxtaan muy lu jëm nag ci wàllum digital ak application bu dafa mel ni euh, Cheikh Tidiane secteur bu ci bëggul a dem des gannaaw. Mm. da ngay dugal sa loxo ci wàllum euh, digital bi. waaw jamono moo soppeeku. fi nekk mm-hmm. nii comme que internet bi dañ ko démocratiser ku nekk yore smartphone am. Mm-hmm. je pense que euh, di gis yëpp ci sa biir téléphone dina am solo. loolu tax mm-hmm. sax ñu laaj la yëf yi naka la. maanaam jeunesse bi foo mu jógee. waaw euh, Cheikh euh, ma lay remercier ci question bi Marie Madeleine euh, Marie Madeleine Diédhiou nag mi ngi may xamal ni que ni dafa juddoo ci famille artisan maanaam famille maamam téyër la woon. Mhm. mais dafa gis ni que ni ñoom seen kër après day dañuy jàng jànkonteel ak yenn jafe-jafe ngir nga xamante ne nit ki mën na am créativité. Euh, ñaw lu rafet mais pour am mu am visibilité. Mm-hmm. dafa des. Mm-hmm. dafa des ci noonu daal la doog a xalaat te gis na que ni tamit actuellement nii ci secteur artisan muy cordonnier beeg di euh, nu mu tuddati tailleur beeg di maquilleuse yi sax. Mm-hmm. yee léegi pour affaire yi jàll foo nga dugal ci net bi ndax léegi ku ci nekk koo gis rek mi ngi nekk ci xarala yu bees yi. ci noonu nag ci la daal di toog ne pourquoi pas jox leen chance. defar leen nu mu tuddati benn def benn studio. ci noonu lañ dem euh, nu mu tuddati galerie. bu Sandaga doo daal di leen proposer service bi ñooñu daal di adhérer. Mm-hmm. mu daal di ñëw foté modèle yi dugal ko ci application bi et mm-hmm. tout xam nga ñooñu di am visibilité gars yi di commander. Mm-hmm. tailleur yi tamit di télécharger application bi. noonu nag mu ne naa pourquoi pas ma wut sama benn studio. ci noonu nag la wut benn studio am léegi def def fa appareil de photo oh, équipé ko. à chaque fois nag ku am sa modèle. da nga koy indi. boo ñëwee photo ko toog indi ko moom mu photo la parce que gis nañu Euh, ñu bëri tailleur yi ñu bëri dañuy bëgg di wane seen produit mm. mais euh, qualité yi photo bi mooy des peut-être mm-hmm. parce que mën nañ am mën nañ créer modèle bu rafet mm-hmm. Mm-hmm. mais qualité photo bi mooy des moom nag dalay offrir loolu yëpp ndax da ngay ñëw mu indi photol la ko ba mu nice dugalal la ko ci application bi nag mm-hmm. te nag gars yi ñu ngi ciy commandé mm-hmm. gars yi ñu bi sax euh, mu ngi mi ngi Android mi ngi Play Store ak Apple Store yëpp ba nga nga koy gratuitement te dina la won euh, nombre de par jour dina la won nombre de modèles yu ñu publié nombre de tailleurs yi adhéré nombre de téléchargement yu ñu am ci journée vraiment c'est une euh, initiative à saluer. et, puis, et à encourager. et puis elle est très jolie en plus Marie. <laughs> Marie macha allah. Ah, ah, ah. Modou Fall mi ngi may mi ngi may wax xoolal xoolal xoolal rek mais moi j'ai pas regardé. ah bon. ah un bon sénégalais elle est trop jolie <laughs> Marie on te fait un coucou. une bonne Casamançaise. de toute façon honnêtement bi weer koor bi duggee xëy na. Maodo Maodo même dégg c'est c'est une mini mini fatidien. su dee maam. Marie Madeleine a leen di déglu. waaw Marie Madeleine li ma ji ñi moom moo ma wax waaw li wax ji leer. su dee maam léegi gis nañ ni da koo yeesal. Euh, tey jii ci wàllu mi def nii xëy na am na ci li ni moo di objectif mu di nemmeef teef. Mhm. Euh, tey lan la jàpp nii moom mooy objectif li mu jëm. moom euh, nameefteefam comme ni nga ko waxee mooy gën a yokkal yokk secteur bi ngi boobu doole. Mhm. surtout ci côté visibilité bi comme ni ma ko waxee. parce que léegi Modou ñu bëri ci internet bi la ñuy jaayee ci la ñuy jëndee. ci la lépp looy def marchandise yi mën na ngay gis rek baana baana yu ndaw yi genre Fatou Ndiaye seen statut yi la ñuy jël. daal di def statut xam nga. donc moom moo tax it objectif am mooy gën leen a jox doole parce que secteur yooyu ñu bëri par exemple boo demee village artisanal. Mhm. danga naan ñii dañu leen fàtte gannaaw. alors que pourtant il faut de belles choses. très ñuy defar affaire yu belles choses yu rafet. donc moom ci loonee nag la gën a fir farlu. Mhm. bëgg rek ngir euh, jàppale leen objectif am daal mooy léegi bu ñu bu comme yeneen secteurs yi ni ñu amee ay ay plateforme ak ay ay application nekk ci digital bi. Mhm. ñoom it bu ñu des gannaaw. Mhm. très bien waaw. est-ce que euh, non application bi pour télécharger ko doo fay mais nag par par contre boo ñëwee indi sa modèle. pour ñu ñu fotol la ko dañ la koy fotol ba mu baax kii euh, dafa am échange. bien sûr dafa am dafa am échange naam sax kiiwul rek mais. Mhm. am na am na am na as tuuti échange. daal c'est normal ah c'est normal. c'est normal mais euh, application bi moom c'est c'est gratuite ku ko bëgg rek boo demee ci euh, Play Store di nga ko am boo demee ci Apple Store tamit di nga ko di nga ko télécharger. ma bi ma ni mare nga ko waaw mari de sax nga waa plateau bi jërëjëf et puis li nga la mhm. la c'est très très très important ñu koy jaajëfal bu baax ah. euh, Fati doguma la par mhm. exemple gis nga boo duggee ci ci application bi mhm. par comme léegi nii démb ci guddi ak tey dafa am na cinquante six tailleurs yi nga xamante ne ñoom adhéré nañ ci macha allah am deux cent vingt six modèles téléchargement yi toobal ci trois cent dix kon ça veut dire loo xamante ne la luñ ko war a encourager la comme niñ ko waxee doomu réew bu ñu jëlee ay initiative ngir def dara foog ñu encourager leen te tailleur yi tamit foog ñu booloo jàpp mu du yem ci tailleur ñun ñii yëpp ñuy yëngu ci secteur euh, voilà artisanat bi ñëpp rek moom yaatal na ñëpp képp mm. kuy ñëw defarkatu dàll beeg defarkatu montre bi képp ku am loo kii rek boo ñëwee ci Marie. Hmm. incha allah dina la jàppale pour nga am plus. dafay valoriser Made in Sénégal. voilà surtout dafay koy boole ko ci mode Korité. <laughs> parce que bi nga xam bi ngi ngi naan tamit lii problème mu Sénégal mooy matière première yi xam nga hmm. chaque fois matière première dañ koy exporter. Hmm. bu ñu toogee ba bés ñëw ñu mën ko defaral suñu bopp liggéey bi day gën a yomb. waaw moo tax nañ ci gën a farlu daal gën a gën a. Euh, xarañ ci mbir mi. macha allah Marie ñu ngi lay jaajëfal bu baax xale la mais xale itam bu euh, am jom la li nga indee signaté. wallaay ñoo ko mérito Chérif ñoo ko mérito te dégg nga li awa wax dafa jël localam jël studio mhm, di foto di def ay photo bu dugal je pense mhm. li ñeneen ñi mën ñun aussi mën nañ ko wala ñu mën lu ko daal. naajur xëy. wallaay absolument parce que absolument semaine bi comme on parle beaucoup d'emploi. je mhm. pense que il faut quand euh, initiative yi ñu leen di encourager déjà di jàppale ndaw ñi. te te yemoon sax ci ci ci carré Sibérek de am na am na chaîne YouTube tamit. Mhm. am ah, na chaîne YouTube tamit. moom ak benn benn moromam. Mhm. créé nañ seen chaîne ñii daal Fatick nañ leen jàppale daal. bi visibilité moo des ak financement ni monsieur Diouf waxee. visibilité bi nag euh, boo fa pour nga am ko. aussi financement yi daf ciy am solo mais lu mel ni li awa di def aussi daf leen jàppale bu baax parce que tey c'est sûr que yéen ñu koy seetaan bu leen si l'occasion se présente di ngeen dem xooli application bi Caresse yi de quoi ça parle et puis ça vaut le coup Marie on t'encourage et puis nous te faisons un gros nga fi benn fan club euh, Modou Fall ak Cheikh Tidiane ñuy xëccoo instant yi euh, jiite euh, boobu les fan club ñu jaajëfal la bu baax a baax di la souhaitewaat encore une fois un très bon courage di jaajëfal téléspectateurs yi ñuy seetaan awa ñu sant la jóge ci xarala dem ci koom Abdoulaye Diallo la ñuy fekki ca diwaanu Fulaadu